merci man dinaa ñëw benn jour assister ce cours xool un peu comment ça se Ismaïla on va s'arrêter sur euh, deux dates euh, on est le 3 juillet euh, le juillet l'année dernière moment bi fekk nañu am délivrance mais le Sénégalais les Sénégalais retenaient leur souffle président Macky Sall waroon na euh, déterminé wu par rapport à sa candidature mu def un discours mémorable d'ailleurs euh, salué dans le monde entier pour dire euh, qu'il renonçait un an après avec le le le le, le recul euh, ban appréciation nga ci am. non d'abord appréciation ba ci am mooy il faut lui rendre hommage parce que il a lu la situation politique du pays xool fi dëkk bi tolloon mu évaluer risques yi d'ailleurs soo seetloo discours bi dafa ne après une longue et mûre réflexion. évaluer risques yi pour le pays gis ne peut-être sax constitution bi dàqul woon candidature na nekk candidat. te loolu nga gëm ba tey. waaw parce que xam nga droit am interprétation la et à l'époque ni ñu ko interprété woon c'est que si le texte n'est pas euh, rétroactif moom waroon na mun defaat beneen candidat bon politiquement je pense que euh, amoon na encore ay chance même si situation politique dëkk bi compliqué woon na. mais li gën a am solo mooy moom ci boppam parce que c'est lui qui était concerné moo def une évaluation de la situation au regard de l'histoire xool li nga xamante ni moo baax pour li mu yaakaar ne moo gën ci dëkk bi mu def ko te bi mu ko defee gis nañ ne yàlla def na ñu dem ci élection dugg ci jàmm génn ci jàmm te loolu moi je pense qu'il faut lui rendre hommage il faut il faut rendre hommage aussi au peuple sénégalais qui a bien accueilli ça une bonne décision qu'il ne faut pas regretter. avec le recul il aurait dû. oui avec le recul je pense qu'il aurait dû parce que le plus important les risques pour le pays le plus important c'était la paix sociale. non je veux avec le recul. il aurait dû y aller. non il n'aurait pas dû y aller pour moi pas du tout. pour moi il avait pris la bonne décision parce que décision boobu la ko conscience am woon. décision boobu la ko circonstance historique yi dicté woon décision boobu la jàppoon dem moo gën ci Sénégal te foofu jiitalul son ambition pour le pouvoir son obsession pour le pouvoir dafa jiital aussi jàmmu Sénégal dafa jiimal dafa dafa jiital stabilité wu politique gu Sénégal moo tax pour man c'est une décision boo xam ne jël na ko baax na il faut lui rendre hommage